booy jànku te yàlla dimbali la ñu nga bokk ci ñi nga xam ni yàlla dafa am doom yoo xam bu nu juddoo rek suñ borom moo leen ni dañuy am biddéew biddéew bi day ànd ak coow mais xale yi xam nañ li ñu bëgg parce que Sénégal xale bu fi yeewoo jamono ji bëgg nga sëy te aussi tamit bëgg nga xam nga li sa ndey doon dund te xale yi bëgg ay jàmbaar la mais li ma leen ñaan rek mooy sëyu xale mag ñaa cay jàpp mag ñee ciy jàpp ndax âge bi ñu am matiru ñu pour dugg ci sëy pour gérer ko automatiquement ay ndaw lañ léegi ndaw ñi nag mag ñi ñoo leen di pousser parce que dafa am fu njëkk a jaar mooy dañoo jaar ci artiste dañoo jaar ci buzz te boo jaaree ci buzz ma di leen gën a ñaax ni leen sëy du moroom sëy xare la boo ca juree doom jam nañ na man nag li tax doom ma mën leen a conseiller as tout di seen yaay di seen bàjjen mooy foo ma duggoon ca ba may tuut ba léegi falaane aw ma aw ma stress de de amour daal waaw parce que man damaa amouré ma am mariage sama am borom kër boo xam dama ko bëgg lool fonk ko lool ragal ko lool tit ko lool mooy sama borom kër fi ma duggoon ci bi may tuut ba léegi fa laa nekk may ñaan xale yi ñu góorgóorlu te xam ne sëy tax sax ayot waaye booy tas ngala bu mu nekk say défaut yow ku jigéen ki ndax yàlla bi mu bindee sëy fa la bindee leneen la bëgguma ko sax di tudd ndax ñaanuma ko yàlla waaye bëgg naa daal ngeen góorgóorlu fonk seen jëkkër yi fonk seen goro yi comme sedd bii di ñëw xale bu ne mën ngaa profitoo sëy sedd bi sedd boo amee goro boo xam dafa am romantisme ay loxoom di lox ay tànkam di lox mu tuuti mm. boyalal ko ànd bi ba mu nukk defal ko ci cuuraay du yëngal asmaam nga toog di ko wéttali bu la sedd bi jàpp ba nga tëjoog sa jëkkër bàyyi sa goro ak ànd bi. mais est-ce que boobu am na ay sëyi goro. non fa ndox daan taa saa yi fekk fa tepp teppal xale yi bëgg a sëy ñu ngi sëy xale yaa ngi góorgóorlu bu baax macha allah te xale yi génération bi mu jeexew maa xam nga leen ci ñoom ñoo gën a mën a muñ mag ñi ndax buñ la bëggee dañ lay sëyal mais am na ci xale yoo xam ne dañuy seey si am xale yoo dañuy seet si am xale yoo xam ne dañuy si toi et moi dafa am toi et nous am mhm. toi et famille am. am ci gën a baax. toi et famille baax na toi et nous baax na ndax mbedd mi sax mère bay jaay gerte caaf ci sëy bi la bokk mhm. boo ko rombee da ko war a nuyu. alors maman comme ni nga ko waxee. alors comme ni ma ko waxee mu nekkoon ndaw nekk ci yoon di way macha allah adduna bi yëpp xam ko mu daan dégg lu difficile tey maman lii bu amee loolu ban njëg nga ci am. fii mag ñi sax ñu ngi dégg difficile. man sama sortee bëriwut waaye bu soo ko ne sama sortee bëri dama yor saag ni di wax ay si si sa saa di dugg ko génn ko jamax a la ñu tuddal ma dara mm-hmm. waaye daa fekk ne man lépp lu may yëkkati rek eh, fu tuddal ma dara mm-hmm. waaye daa fekk ne man lépp lu may yëkkati rek eh, fu ñuy koje as gor daal ci lu baax dinañ ma fa fekk waaye fu ñuy kojee leneen ci leneen duñ ma fa fekk mm-hmm. waaw maa koy ñaan rek na góorgóorlu maa ngi koy ñaanal man yaayam lama ma ñaanaloon marisu ak sama doom ja xaadim laa koy ñaanal yàlla na sëy bi neex yàlla na sëy bi ànd ak bare yàlla na sëy bi ànd ak jàmm waaye yàlla na sëy bi ànd ak mucc ci darajay rasulullah di ñaan ñi nga xam ne nag seen sëy yi dañoo yàqu maa ngi dégg sama doom jooju Daba Njaay waa xam nga sëy ñaare li koy tas mën na nekk leneen sax lu bokkut ak li nit ñi di wax ndax bu dee dañoo am sutura waxuñu seen biir kenn waxut ci ñoom ñoom ñu ko séqoon na ngi toog ñun ñëpp dañuy joxe ay version waaye di ñaan rek bu dee gën na ci ñoom yàlla yàlla defaraat diggante bi. mais moi aussi bëgg nañoo tamit am fu ñu taxaw ci ci ci kaaw Daba Ndiaye parce que borom borom këram da ko mayoon trente millions ak oto léegi ñun ñëpp li ci wax sëy bi yàggul loolu ndax nga gisee comme ni ko Sénégalais yi waxee xale jigéen sëyatuñ rek yooyu noonu. waa xam warugaru un milliard cinq milliard sax jaadu na ci jigéen jigéen produit la te matériel la matériel u vie la ndax moo lay jural kilifa gu ne moo lay jural sa yaay jural la sa baay jural la sa frère jural la sa sœur jural la say mag jural la say rakk jigéen du alal jigéen magazine la trente millions du dara dafa fekk rek mu fekk ko faa te ki ñuy dugg ci moom mu jik ko fekk fa trente millions yi. mais maman comme ni nga ko waxee. jigéen ñu woon soixante mille ñun ñu sëyee woon soixante mille ñu ngi ci ay milliards fi waa ñun suñuy jamono 60 mille lan tasee la. nekkul yéen maman yi ci la maam ci la sëy mun a taxaw ko heure bi comme nee nga 60 000. ngeen ne ba léegi ngi kalan-kalan ngi ñu ngi fo am na mag ñoo xam ne fi ne tas nan bu yàgg jël carte indépendance ça dépend gis nga yàlla muy bind ay sëy bu waree jeex day jeex mais alal ak yii man man dunduma loolu quoi parce que man dama jàpp ne ku gis doomi jàmbur bëgg ko mu fekk ko fa xam nga kenn du lebi ay 30 millions di ko def ci jigéen 30 millions moom lebiwu ko def ko ci jigéen ji bu fekkee ne daf ko may 30 millions daf fekk ne jigéen ji xëy na diiran bi ñu nekkee di génn wala di bëggante yàlla dogal na mu gis ci moom sens ak vi loo xam ne dal na ko ci moom ba millions yi mën faa ñëw ba mu mën ko cee tànk. comme ni nga ko waxee ma jigéen jar na nga may ko ay milliards mais ki nga xamante ni dafa nekk bitim réew liggéey. def ko ci moom alors que tey jii comme ni ñu dégg ci ay information mooy que ni dana ko da ngay sëy fi nga xamante moom mooy Fuuta mun na ko duma sëy divorce bi looloo ko andil est ce que tey góor bi nga xamante def na ci yow alal amul droit la demal fii wala demal fa. non bu la yónni woon ca ca ga ngeen yéeg ca Dakar ga ndax sëy moom bu ñu ko xasee ba takk wax dëgg yàlla ki nga xam ne mooy sa borom kër moo yor sa buumu cargal fu ko neex ngay wékku fu ko neex ngay dem ndax bu ñu demee ba seer yaa ni la boo amee borom kër sa borom kër kii sëriñam mooy sab sëriñ fi mu jébbalu fa ngay jébbalu dangay bàyyi sa kër nday bàyyi sa kër bàyyi jox ko sa àdduna jox ko sa lépp moo lay dugal àjjana kon kooku fu mu laaj war nga faa aju fu la yóbbu war nga faa dem waaye nag version la rek boo xam ne tasaare la ñu dégg tasaare gi ñun xamuñu lu ko tas ma daa maa ngi ñaan yàlla ko yàlla defaraat ci daraja rasulullah comme ni nga ko waxee euh, maman tamit bëgg nañu foofu tamit incité ko parce que dañuy gis euh, jamono ji ñi nga xamante ni bi bi ñu leen leen mayee ci lañ ëpp li ñuy def ci ñoom xaalis day xool tas bi moom daal day jékki-jékki rek ñu ne diw tas na lan moo waral loolu. boo xam nga dama am na yenn tas yoo xam ne nee naa ñaar rek ci man dara muy problème mu la yooyu day tas yu bari bu ñu jaawale moo tax du ma ci xóot ndax man damaa gis yu bari yoo xam ne problème mu la mais bi ma jaayee waa moom defaruwaat. bi mu demaatee. ndaw si xool dafa tubé waaw am yenn saa yi am na yoo xam ne ndox siti da koy def hémorroïde da koy def ta ñëpp a ko am diabète da koy def ta ñëpp a ko am prostate da koy def day delloo affaire bi te am na ñoo xam amuñu maîtrise xaar fa loolu. loolu loolu loolu la yéen ngeen di dégg nii ak yi xew bëri wut amul de. Hmm. am na fi ñeenti yoo xam ne maa ngi fi déggoon ñu koy coow te ndekete du problème bi du ay affaire problème affaire bi ay affaire yii la woon mais man faj naa situation yooyu. léegi mu defaruwaat moo tax bu leen gaaw di di jégal ay média man xam naa moo tax du ma ci sori te sa liggéey dama koy privé moo tax surtout. waaw Maawo seen problème ñoom it divorcé nañ men dafa xew. waaw yàlla na leen yàlla jubóole parce que couple boobu téeméeri nit ñoo xam ne yàlla dogal na ñuy dugg ci sëy ñoom ñoo tax ñu am ñu am couple mën ko tendance mën a def ay nuróole ay t-shirt mu nekk lu rafet ngay ànd ak sa jëkkër di def lu rafet ñooñ dama leen naw. seen sëy bi na ko defaraat na nga xool fi problème bi ne. man dinaa ci doon mais est-ce que parce que bi ñu déggee Mia mu toog ci télé nee na divorcé na trois fois te l'islam boo divorcé ñetti yoon foofu sëy amatu fa kon yaa. mën na koo takk sax bu ngoonee mu fase ko nit mën na koo takkaat loolu moom du dafa ndax Mia mi ma gis doyalut ci jëkkëram te jëkkër ji ma gisit doyalut ci jabaram mhm, ñoom mën nañoo àndaat yàlla mooy bind loolu rek. ay nit bu ñu dundee benn diiraaka dix ans wala ñu dund quinze ans bon amul ci ku bon amul ku dafa xat Mm-hmm. mais mais kon seen mos yi ñu génn nag gaa yi jàppee ko ak gaaruwaale mais yaa moom idda la la la la. xam nga Sénégal fii lii may wax nii sax man yenn saa su ma nee comme <laughs> su ma waxee benn affaire te maa ngi lay waatal ci rasulullah ne man du ma tendance kenn parce que li ma mel neex na ma man bi yàlla di fabriquer gis nga ni ma def nii daf maa neex bi ñëpp di xees daf maa bàyyi ma ñuul. man ni ma mel daf maa neex xale yi ci lañ ma bëgg mag ñi ci lañ ma bëgg maay mm. maman des nice parce que la mignonne de vaillante la mm. mais tey am na ñoo xam neexulee naa ah. mm. dañ yaakaar ñoom laay tooñ te barke yeneen man du tooñ kenn mbubb ma xool ne man bu ma ko solee day dang ci man bu ma ko solal kenn noon laa mel man dama am publicité. comme ko waxee na ñoom couple yu bari ci ñoom lañ daan jëlee référence tey ku sañoon ah, tey ku sa ah. maman ko jàppee loolu xam nga tey li nga déglu li nga bëgg xam rek ngay xam. nii may waxee nii di ko di ko waxee nii muy ay vérité ci pomade yi nga xam ne wutuma ci ay buzz nax fi ne moom jaar na sëkk ñëpp tiktok beeg nit ñaa ngi koy dagg sax di ko dugal di ko reprendre di ko di ko wax di jël samay langage sax di ko publicité man dama leen ko may gratuite parce que njiit moo mel noonu foo nekk chef nekk fa acteur de film affaire noonu lay demee vendéante yi man may seen acteur yàlla moo ko programme du man kou ah, ku mere wool yàlla téléphone nangu naa nit ñi jël sama image li ma mën a maye laay maye quoi parce que maye naa sama image bi lu ci neexu waay. nga wax mais loolu voyante du peuple loolu nangu nañ ko parce que boo demee diaspora international kooku dañ may seetaan xuloo mais dañ may seetaan ba daw kottante te duñu yëg ne kottante nan man loolu laa ci jublu te sama mën moo ma fa yóbbu du ma tooñ kenn nag bu mu ma sol xam ne jotuma duma ko solal kenn mais sama image bi bu fekkee ne ci la nit di jaay sa promo pour ñu déglu la jàppal na kenn dégluwu parce que xale dañ ma bëgg jàmm rek ngay wax ci man am jàmm ci man jàmm maa ngi lay waatal ci Seydouna Muhammad xol bi ma am ak yéene bi ma am yow dañ lay caw te doo yëg ki lay caw kan la. waaw comme ni nga ko waxee euh, euh, da nga feebar da nga soj da nga grippe waaw te ñun moom. Euh, catu ndel yi la catu ndel catu ndel <laughs> catu ndel yi ma jàpp dafa soj. doo am ndel moom mën naa ne wër na.